bu ñu nee Parcelles Assainies xel dem ci unité 10 buñu nee unité xel dem ci mbërum mbërum Parcelles Assainies muy kan Modou Xarañ loo balaa nag may gën a may gën a sori damay dugg fi nga xam ne Modou faradooree mooy kan say ñebe ku xam ku xam Modou loo xam kook say ñebe ku xam say ñebe xam kook Modou loo te xam ne mook say ñebe mbur ak dafa mel ni mbur ak soow waaw yegsi naa fii ñu naan say ñebe waa sëñ bi tur bi naka la man Xaadim nag yow fii fan la waaw waa tey waa sunu TV ñoo leen seet ñoo la ñoo leen seet si woon waa unité 10 bëgg leen a laaj euh, mbër mi nan lay préparer làmb ji ak yéen nan ngeen di waajee seen combat ak tamit bëgg xam lu ngeen xam ci mbër mi. yow xaadim ku ne xam na ni ku ne say ñebe ni Modou ku ne Modou na say ñebe wax waxaat du bëri wax dama ciy delluwaat ngeen koy xam ñoom ñaar dañoo mel ni mbuur ak sow ndax Modou Lo ku ne xam na ni fii la dooree démb tey soog a ñëw mais sëñ xaadim wax ñu lan nga xam ci sa ci mbëru Parcelles bi. ah lan lañ xam ci mbaru parcelle bi donc ku kenn xamul la ñuy xamle quoi mais Modou boo laajoon tout tànk yi taxaw sax ñu wax la kan mooy Modou donc kooku moom Sénégal yëpp xam nañ ko donc ay wax waxaat lay doon mais Modou moom euh, boo laajoon kuy jàng dox sax <laughs> ne loo xam ci Modou na la waxal de A ba Z donc leneen li des kay moon ni ñuy waaje suñu combat comme niñ daan ni ñu waaje woon yeneen combat yi rek parce que combat bi jënul métti combat yi passé combat la comme combat yëpp donc jël nañ ko fu fépp fu Modou yaakaar na bu fa demee dina am dina nekk euh, dina am dina nekk dans les bonnes conditions rek dem na fa def na li mu war a def yëpp dellu si na ci jàmm donc ñu ngi ñu ngi préparé toog di ñaan yàlla victoire bu sedd guy. kon dafa mel ni su ma la déggee dafa mel ni yéen pare ngeen. yàgg na yàgg na yàgg na yàgg na du tey. léegi loo leen di loo dénk Balla Gaye loo leen di wax Balla Gaye. Ah, lu ñu wax Balla Gaye moom comme liñ ko ñu daan wax mbër yëpp bu yaroo. ànd ak dal ñu daan ko daan bu yar bu yaree ñu duma ko daan ko yàgg na. gudd fan. waa nag barke. di ko gërëm foog ba gërëm di yem sama xuset la ci moom maa ngi ko ñaanal yaay ma ko ñaanal xale bu yaral la ba déggal la waaw di ko ñaanal gudd fan ak wér. tey li mu jub yàlla na ko ci yàlla may ndam ci bàggu yàlla rajo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam